خليفة نعمة مزايا بل دارت زوايا سيدنا ابو بكر رضي الله تعالى عنه ويم بيدي عمت مزاياه بل دارت زواياه لم كتنبلي منما الحمد لله هذا الشيخ رباه خير الوجود الذي أعلاه مولاه منما dafa naqaree dégg mu ñam ndax boo ko dee firi boo ko tàmbalee ca alhamdulillahi ja mu ne ma bootul doo ko dégg ndax dina am lu la xaw a rëcc ma ne ko fooy tàmbalee pour firi ko mu ne ma dangay tàmbalee ci hada cheikhu fa ngay hada cheikhu nag euh, ëmb na sant yàlla ëmb na yéemu ëmb na yëg ni am nga lu jafe am bu la neexee sax ne am na lu kenn amul kuddu ku mel ni ki ma bokk ak moom lii te mooy sëriñ bii di Maulana Cheikh Abul Abbas radiyallahu taala anhu hada bii sëriñ hmm. yàlla dogal muy sama sëriñ hmm. hada cheikh kan mooy sëriñ bi sëriñ bi nga xam ni rabbaahu yar na ko ku ko yar xayrul wujudi ki gën ci li yàlla bind amal ko moo yar sëriñ bi yàlla dogal muy sama sëriñ kan mooy xayrul wujudi xayrul wujudi lesi ki gën ci li yàlla bind di ka nga xam ne alaahu kaweel na ko ba gannaaw yàlla moo féete lépp kaw kan moo ko kaweel mawlaahu boroomam moo dogal kooku yar kii kii di sama sëriñ ci lu yàlla dogal kon alhamdulillahi nee alhamdulillahi ba ngay mujje kon sant yàlla rek war alifaani alhamdulillahi hada cheikhu rabbaawo خير الوجود له ذي أعلاه مولاه